toog fa def ko def ko conseil foofu waaw. <laughs> mi ngi doon Bamba ci visite euh, euh, premier ministre Ousmane Sonko dem ca Touba mun nañ jàpp ne. Euh, dafa dem ci cadre ci li ñu ko doon xaar parce que ñu ngi ci bëri ñu ngi doon wax ne sax moom la premier ministre dafa war a wax ci mbirum Cheikh Omar Diagne wala le président de la République jël ay responsabilités am ci moom. waaw boo fàttali ko keroog ñuy def euh, journal. Euh, te ñu jëlee ko suñu ay confrères du Sénégal que ne waroon a mm. dem Touba. alors que ça n'avait rien à voir dafa demoon jàll ji. mais keroog waxoon naa la àpplement que ne. Mm-hmm. dem présenter ses excuses. Euh, maintenant je pense que li ci am lu bees mooy te journal bi di Dakar Actu ko mooy. Mm-hmm. démb Ousmane Sonko ànd na ak Cheikh Diba vers les environs de 23h ci délégation bu restreinte. Mm-hmm. dem gisee ak la xalif général des Mourides. mais li journal bi wax bu fekkee am na aussi loolu lu ñu war a jàngatal la parce que Ousmane Sonko dem na ne na moom. àndul d' ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko. Mhm. mais beneen bi it nee na moom xamul kan mooy si Omar Diagne ci kaso gi la la xamante ci noonu la nekkee xaritu ki nga xam ne moo di Diomaye Faye ça veut dire foofu dèjà réeroo am na. xaw ma li journal bi wax fan la ko jëlee xaw ma fan la jëlee suuf si mais bu fekkee li am na également dafay wane que ne déjà ñi ñu jiite sax kan même am na loo xam ne war ko xoolaat seen biir parce que nit aussi boo koy fal war nga def jàng yi nga xam ne moo ci war wala war nga xam ni kii lan lay représenté et je pense que tout à l'heure suñu gan mu ngi koy wax que ne Cheikh Omar Diagne il est justement des faits c'est pas la première fois pourquoi coow li am ñi dagg yeneen vidéo yoo xam ne defoon na ko à l'époque da ko indiwaat euh, peut on parlera de diabolisation et cetera et mais quand même war na xoolaat boppam dans cette affaire si que certains jugent que dafa am des acteurs politiques yoo xam ne dañu broxlu dans cette pour diaboliser et mais en mooy bu fekkee ni li Dakar ak ci wax te TFM reprendre ko ce matin mm-hmm. que ne premier également moo ko wax là je pense a problème mm. il y a problème que dañu parce que bu premier ministre ne moom xamul sax naka la def que ça mérite la sac euh, <laughs> <laughs> ah, mm. boo xam ne peut-être xaw ma fan la jëlee. wala dafa am euh, xam nga. man xam nga. Mm-hmm. Euh, opposants yi dañoo bari te yaatu. Hmm. te du wax presse bi yëpp de mais am na ci ñoo xamante ne ba tey mbir mi fi mu àgg ñoo ko fa yóbbu. Hmm. te cible bi du Cheikh Omar Diagne mais PM la ak président de la République loolu moom maa ngi koy wax di ko waxaat te di assumer samay wax. kan waaw ma ne dama ni. déedéet kan moo tooñ. kan moo tooñ dégg naa kan moo tooñ sëñ fekkee loolu yow moo tax toom ci loolu. <laughs> Euh, xam nga Fatou je pense que euh, article bi nga xam ne gars yi nañ ko ci mooy mu ngi nii mu ne selon nos confrères Ousmane Sonko était parti dans la ville sainte rencontrer le Khalif euh, afin de s'exprimer sur l'affaire Cheikh Omar Diagne. Mm. selon nos confrères dans un discours clair et sans équivoque. Le Premier ministre a confié à son hôte qu'il ne cautionnait aucunement les propos de l'intellectuel religieux maanaam d'accordul ci kàddu yi nga xam ne chef professeur si Omar Diagne na ko mu ne d'ailleurs il ne connaît même pas l'homme qui serait ami à euh, son excellence di Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu je pense ce sont euh, li journal bi wax mooy les mhm. propos du premier ministre Ousmane Sonko les deux hommes se sont connus en prison maanaam moom xamuloon ko ci kaso la ñu fa la ñu xamante fa la ñu waxtaanee ba peut-être ñu doon li nga xam ne moo ay xarit euh, voilà donc loolu xam ne moom la ñu journal Les deux hommes se sont connus en prison, évoque Dakar Actu qui y voit un détachement total du PM des propos de Cheikh Omar Diagne. Nos confrères euh, de faire savoir aussi que le PM, euh, que le Premier ministre est passé par un de ses fils du euh, patriarche Euh, qui semble désormais être euh, li nga xam ne moo di son canal par excellence donc je pense que euh, lii moo doon xibaar bi nga xam ne wax nañ ko et actuellement je vois que ci par rapport ak li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi mais bu fekkee ne lii moom c'est confirmé mm. ah, mbir am na mbir am na waaw mbir am na te et puis li war a mm. leeral la aussi sérieusement tu sais pourquoi y a a problème mm. Cheikh Oumar man je me rappelle bi muy génn kaso dafa defoon benn conférence de la presse man maa ngi woon mais boobu Cheikh Oumar muy wax yëpp waxul woon ay wax Sonko mais da wax torture yi nga xam ne Macky Sall teg na leen ko ba tëj leen du ñu bàyyi dañuy plainte waaye aussi mu ñëwaat ci jaar-jaaram ak ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci kaso bi. Hmm. nga xamante ne defe naa def nañ fa 11 mois su ma juumul. Hmm. boo xoolee loolu la doon détaillé naka lañ doon nekkee ci kaso beeg yooyu noonu donc cellules li des fois daan daan na ko seen mu seen ko. Hmm. tey bu ñu toogee lii génn mu nekk nag loo xamante ne rek lu grave. lu garaaw lay doon. parce que mhm. tey jii suba nee man xaw ma faatu xaritumaane la te faatu ñu tabb nañ ko. nuñ tabbee faatu kan moo tabb <laughs> faatu. man de kii li ma gëm sax moom xalaat day xalaat di wax rek waaye. xarit moom lay waxtaan ak la Sonko di wax moom. Ah. yaakaar naa ñu ñaar kese. non Sonko moom kenn xamal la li tax mu dem Touba dem Touba dara lu dul jéggalu. Hmm. bu ñu bëggee dégg dëgg. Hmm. Sonko li tax mu sol daal la looloo am. Eh. xam lu tax eh. tarixa murid dafa mer. tarixa Tijane maître xalif général des Tijane en plein du la toog di wax ay kàddu jomaay te jomaay le 13 war na fa dem Sonko li tax mu dem tuubaa du dara lu dul jéggalu xam nga lu tax parce que dem nañ ba ci ñu ëpp naan Sonko ak jomaay ñi ngi protéger Cheikh Oumar Diagne nañu génn wax. Mhm. weddi tuuma seetal sa der la. Sonko amaana xam nga war a génn. moom day jublu ci Sonko keroog bi ñuy ndaje bi ñu kanam seetaan nga ko bi ñu doon def Grand samedi. seetaan naa ko mais xaaral xaaral xaaral xam xam nga kan ma war a génn wax. Hmm. soit mu def conférence de presse wala sax mu jéggalu mu Cheikh Oumar Diagne. xam nga lu tax bu ñu ku ñëpp tufli di nga tooy ak tarixa bu mu mënti doon nekk ci Sénégal parce que dañoo baaxoo am suñuy religion ku ci nekk ak fa nga jokk politique politique la tey am na ñoo xamante ne ñu ngi ci diine gi waaye politique gu ñu waaye ku tudd seen maam Cheikhul Khadim nag gis leen ku tudd seen maam El Hadj Malick Sy ku tudd seen maam Baye Niass. Hmm. ku tudd seen ñaar leen di gis. te bu boobaa benn ci man mi sax waaw te bu boobaa ba ci ñun taalibe yi boobaa ñëpp lay tooñ gis nga nemb nemmaaral gi mu nekk bu fekkee bëgg na wéy ci ay activité am ak islamologue bi muy woote na jéggalu mais Ousmane Sonko ak la mu mun a waxtaanee ak sëñ Mountakha wii kuloo am na ku fekkee amul ku fekkee kàddu jéggalu ma ngi ci biir li maa ko wax. Hmm. nuyu na <laughs> sëñ Fall. ah loolu tamit war nekk na loo xam nga tey mën na mën na mën na waruñ ko mën a bañ parce que mën na mën na andi apaisement ci li nga xamante jamono jàpp ma ne ay jéggalu yooyu mën naa dem pour leeral mais nag nit damaa xam ne si mun Mountakha ak président Ousmane Sonko suñu demoon même ña ànd ak PM gi délégation bi mu àndal muy waxtaan ak sëñ bi duñ ko fekk kon man mënuma nettali géntu géntu géntu morom mais mën nga am xalaat moo tax man la kii kii titre bi mu bind nii xam nga euh, Dakar ak ko bind xam nga lan kooku damaa yaakaar ne comme ñun toogee ñun di analyser rek la def analyse am mais hmm. jàpp ma ni am na source bu leer boo xamante ni pe sa Ousmane Sonko ko jox wala xalif général Mouride ko jox. parce que xam naa ne si Mountakha am na fulla joo xamante ni suy waxtaan ak Ousmane Sonko doomam sax du ko fekkee Ousmane Sonko am na am na fulla joo xamante ni su yoroon délégation dem toog di waxtaan ak xalifa bi tamit. Euh, benn ministre du ko fekkee la ñuy wax ñoom ñaar la concerné képp ku ca mën a am li nga xamante ni mooy dëgg dëgg dëgg waral ndaje mi day fekk sëriñ bi wax la ko wala premier ministre wax la ko te yaakaar naa sëñ bi wax la ko premier ministre wax la ko sax mooy gën a yomb ko sëñ bi wax la ko jàngat nag mën ngaa am xam nga njortu man naa am nit ki mën naa mën na laa romb sol ay yére euh, ŋàbb benn peñe nga njort ni marché la jëm te fekk mën naa am jëmul marché hmm. <laughs> day <laughs> faneen la jëm loolu lépp maanaam euh, ci xel mu sell la rek waaw comme ni ko soxna si moom xam naa baatin bi daa bëri moom. sëñ sëñ sëñ Fall <laughs> sëñ Fall ma gën a xam yéen ma gën a xam tey ku nekk ci nguur. Mm-hmm. jóge fa dem seeti kilifa diine. Mm-hmm. ak tension bu mën da am ci biir réew. ak lu mm-hmm. mun waxtaan. sëñ Mountakha dina ko ñaax. ci DPG bi. ndax ñëpp ñu ngi ko koy xaaranti. bu ko naroon def ci mbedd sëñ Mountakha dina ko ne demal defe ko fa nga xamante ne mooy yoon. waaye sëñ Mountakha yaa ngi koy wax sànq du déglu télé. du mm. déglu rajo waaye déglu na ay kàddu Cheikh Oumar Diagne parce que gis nañ récemment Gana Messere def na sortie mm. keneen na sortie Gana gisoo bi mu ñëwee ci ndaje bi sax waaw bi mu demee ba remarqué ne ay politiciens la toogal ba commencé naan da ci la ne nag politique waaw xam nga tey boo dafa wax tey ba yëkkati moo xamante ne mm. euh, euh, depuis démb ba léegi ñenn ñu bari ñu ngi koy ŋàññ dimension bi muy waxee ci Serigne Touba moo tax ma ne la moo tax ma la Gana mm-hmm. xam nga euh, dañ ne seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel yàq na xel mhm. tey gànn ku ne xam na position ci sëriñ bi ak ni mu baaxee nga xam ne moom politiqueul mhm. yàlla rek ak sëriñ Tuubaa moo ko tax def mhm. mais politicien parfois mën na la nax ñëw fexe ba wan la loo xamante ne da ngay jàpp ne kii li mu woote maanaam man ay kàddu ñu dégg nag ñëpp déggandoo ko wala ñëpp liirandoo ko aussi est-ce que loolu mën nañ ci détourner nit peut-être lële euh, récupération politique bi beneen affaire la mais hmm. kàddu yi aussi loolu. non kàddu yi moom rafetul monsieur Omar Diagne déggu ma la dafa xamadi. waaw yaruwut mhm. nit ku jara yaraat la mhm. waaye nag buñ ci bëgg a ñi jug nii dama gis ñoo xam ne dañuy jug mais sëriñ bi ñorul leen. li leen ñor mooy politique. Mhm. ngir jéem a xool ni lii bunt la pour ñu jéem a. cee jaare pour yàqal président wala premier ministre waaye si Omar Diagne man ànduma moom man ku moom sax man euh, fépp fu ñuy ñàkk war kilifa diine wala moo xam sax kilifa aada la wala nàng wala mag man kooku du ma mën a ànd ak moom rawat na Cheikh Omar Diagne moom fa nga xamante ni nee na fa la bokk sax respecté wu la waaw kooku nag kenn mënu taxaw di ko di ko concerné di ko di ko di ko jàppale mm-hmm. ñun jàppaloon ko mais ñi nga xamante ñun dañuy politique ñi nga xamante ni xam nañ leen man gis naa ci ñoo xamante ne am na ñoo xam ma 10 hectares man am na am na koo xamante ne ñu ngi ko jox 10 hectares man ci commune bi ma nekk man. 10 10 hectares non du ma tudd bu déggoo li ma la wax lu ma la jiital du ma tudd maanaam maanaam xam nga tey Macky ni doon yàqee Macky day day dafa aay ci gor. léegi kooku dafa nekk ci coow li. xam nga lépp kenn mënu ko wax mais man euh, xam nga seen baara moom def na ay révélation tudd tur mais ñun nag am na ñoo xam ne xam nañ leen. jàng yor sa xam-xam wala nga yor sa tur ne sëñ Fallou wala nangam nangam ñu xam ne am nga tur nga di ko utiliser pour sa njariñu bopp nit dafa am gëm-gëm dem liggéey pour am. transparence boobu hmm? euh, ko transparence bu Ousmane Sonko kan la. ñun kay ñun kay ñun kay wax dëgg fi yàlla am nga am nga dafa am loo xamante ne. Hmm. man du ma àtte danaa xam li ma xam nag te war koo jox sa samay kilifa. Hmm. pour ñu xamal leen ni lii ak lii ak lii nii la deme loolu danaa ko def mais dafa am loo xam ne waxu kaw la. am loo xamante ni waxu suuf la. waxu kaw bu li naan sëriñ bi lim bind. nit mënut a firi ko mën nga cee am nag lu sedd lu sedd sa xol alxuraan dëgg-dëgg la tax suñu borom bind ko nit mënu ko firi. mais mën nga ci wax rek loo xamante ne ku ko dégg xolam dina sedd. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord léegi ci coalition Diomaye bi nga xamante ne nii foofu nga nekk nga yor mouvement bii di euh, euh, résistance tey jii da ngeen di continuer di gunge le président Bassirou Diomaye Faye ñu ci bokkoon ñu ci bëri euh, ci coalition bi gis nañu yox ay poste de responsabilité wala yéen yéen a ngi ci loolu wala aussi da ngeen di continuer rek gunge le président Bassirou Diomaye Faye. waaw ñun ñu ngi continuer di ko jàppale parce que coalition boo ci bokkee. te démissionné woo rek yaa ngi ci biir coalition bi. ndombal tànk moom. Euh, fu yàlla tuddi da nga fa am ndombal tànk ala kulli aali da fa am ndombal tànk mais ñun bi ñu dugg ci coalition bi ñu dugg taxawal suñu mouvement. Mm. di résister.